dal leen ak jàmm Buzz M TV Ousmane eh, Sonko Mame Mbaye Niang procès Prodac mu war a leer le 16 mars bi gannaaw ba nga xamee ne nag jàmmarloo woon na ñu ko nag ndax avocat Ousmane Sonko yi ñoo ñaanoon lu ni mel kon le 16 mars bi nag dina leer nanya, ndax Ousmane Sonko yor na preuve yi nga xam ne nag moom moom la wax que ne nag kii di Mame Mbaye dafa dugal xaalisu réew mi maanaam dafa xaalisu askan wi. ba tax kii di Mame Mbaye Niang daal di koy porte plainte ñu war a wuy ji le 16 mars bi nag mooy daj tëpp gi amul dàqaatu tax na nag ñi nga xam ne ñoo di partisan ak Ousmane sunko yi bi le passé dañoo wuy ji woon woote bi taxoon moom mi Ousmane Sonko ñuy yàqoon otoom daal leen sànni ay lacrymogène instant bi nag ñooy yooye partisan ba tey nag lu ni mel la ñuy amalaata ndax duñu bàyyi kii di Ousmane sunko moom képp muy wuy ji bi le ndax njortu nañ ne nag mën nañ ko faa téye ba tax nag moom élection yi di ñëw du bokk moom it di Sonko nag moom moo wootee la quatorze bi ak le quinze maanaam nag di wax que ne askan wi nañu génn def rassemblement Dakar raison yëpp bu kenn des loolu nag tax nak nag policiers yi tamit ah bàyyiwuñu seen loxo. ñoom nag instant bi nag ñu ngi wër fépp nag maanaam installé wu di xaar nag ba xam affaire yi fana lay mujjee mu nar a nekk nag coow loo xam ne nag ñu ñaan yàlla bu mu demee noonu sax lépp am si jàmm moom Ousmane Sonko wuyu ji ñu àtte mbir mi si dëgg euh, Ousmane Sonko ñibbi këram. Euh, lu si man de xew laal nag na nekk rek si jàmm ndax Ousmane Sonko moom ñibbi këram mooy jàmmu Sénégal ni gisee réew mi di doxee ndax partisan yi nga xam ne nag ànd nañu usmaan Sonko ak gone yi maanaam dañoo déterminé wu trop trop si bëgg gi ñu bëgg Ousmane Sonko yamale wuñu ko ak lenn li ñu jàpp rek mooy duñ ko bëgg a faqastal rek xañ ko li nga xam ne moo di élection présidentielle yi nga xam ne moo di ñëw moo tax ñuy laal procès yi yëpp. ñoom loolu la ñuy jàpp kon nag kii Ousmane Sonko li ñuy ñaan rek mooy ñu dawal mbir mi si yoon rek daal di koy bàyyi mu ñibbi këram su ko defee jàmm mën am si sunu réew.